Euh, annoncé itam ay mesures tey mu jël dogal dalal leen waxtaan ak yéen ngir ñëpp booloo doon benn ngir xeex feebar bi di coronavirus ban jàngat nga mën a am ci euh, jéego yi nga xam ne njiitu réew mi teg na ko ba ci euh, di leen dalal tey. ngeen baal ma bala may tontu foofu ngeen baal ma nasaraan yi xam nga loo jàngul di ko làqar ci moom. Eh, chef d'état bi moom pour ma wax ci moom sax day xaw a jafe. ndax ne war naa bu ma ñëwee moom damay kii damay audience bi dama koy xàjjale sept minutes yu njëkk yi nekk xuloo waaye comme daf maa dominé euh, moom ma wax ci moom du porté ndax je l'aime beaucoup wane naa ko nu ne waaye bi ma duggee li ma ko njëkk wax rek mooy da ngay am ndam nee naa ko itam feebar bi fii du fi avancé Sénégal na sa xel dal du avancé waaw sama conviction la donc li nga xamante ne bii parce que moom mi ngi ci continuité am rek waaw ah. président Macky ku ko xam moom daanaka lu man di xew itam même comportement même attitude xanaa ay ajustement dina ci am ay yooyu rek yu mu yokk mais lu man di xew itam moom ah, mi ngay ko dalam hmm? mi ngay expérience am mi ngay ko njàmbaaram ah? mi nga ji itam bëgg askan wi surtout stress bi nga xamante ni bii mooy xew waaw loolu dinaa ci profiter wax Sénégal yi nit fal yatawakkalil mu'minuuna ala Allah nit dafa war a ñeme ragal baaxul ragal baaxul waaye bu ma nuyoo kii mbaa bu kii sëqatee man bi ma avant may génn damay damaa ñaan ku tedd ki ne ko bu ma fa sëqat ndax sëqat day <laughs> bette te boo sëqatee maa nga kii ñu ne mu ngoog donc nit dafa war a ñeme waaw faw fal yatawakkalil mu'minuuna ala Allah te kenn mënu koo daw waaw wala kuntum fi burujin mushayyada <laughs> kenn mënu koo daw maki moom dañu koy ñaanal rek dëgg la sax sëriñ saa ngi koy ñaanal waaye man nag maa ciy raw ndax maa demoon ba Cees jàpp ci loxoom yëkkati ko waaw maanaam dama doon koo xamante ni bii man duma ma defantu du ma jàppantu bokk na ci li ñuy xaarandi ci yéen jamono ji muy euh, sensibilisation ñeel naka la ñuy def ba sàmmonte ak euh, charte yi nga xam ni nguur gi mu ngi koy jël maanaam respecté euh, geste li ñuy wax geste barrière ci foofee ban sensibilisation ban appel ngay lancé ñi nga xam ni tey ñoo nekk si ginnaaw déglu waaw mooy mooy respecte ko rek mooy respecté ba nekk citoyen kay nekk républicain am état am sa chef d'état état bi am lu mu dogal ci ndigalu chef d' état bi citoyen bi ak républicain bi kay lu mënoo waroo def lenn lu dul respecté ko loolu moom man nag dafa am beneen façon bu may wax ak sama njaboot sama njaboot dafa bari ñoo xam ni dafa bari ay daanukat li ñu tuddee daanukat <laughs> waaw moo tax beneen façon laay wax ak ñoom mais fii li may wax rek pour tout le monde mooy un citoyen moom dafa war a respecté dogalub état <laughs> kooku moom leneen na may waxee ñoom nag ñoom boobu maa ko xam. jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ bi jërëjëf